احببته حتى اراني كنته فوفلا علقت به والناس في فتنة الكرى من تمتعت منه الدهر ما يبانيخو تي يونتي بي جامانو اذ كنت مفردا بوبو كين لا في تي ادنا لاني بوخانتك من ماي واخ بغنا يونتي بي كينن دي واخ بغنا يونتي بي واي افان تاي مانك يونتي محمد تمتعت منه الدهر بانيخونا تي يونتي بي جامانو اذ كنت مفردا بوبو من كين لا وان مانك يونتي محمد صلى الله عليه وسلم باي نينا إنني قبل البرايا حبه شغل جناني إنني من باي قبل البرايا بلا من دفمي بلا يالا دي ساك أسمان بلا مو ساك سوق بلا مو ساك أجناك سفرا بلا مو ساك عالم أرض الشمس متي بلا مو ساك عالم بغائينا عالم الكروبيين بلا مو ساك دره booba من حبه بغ يونتي بي شغل jinaan مو moo سما خول ني نكو ne ko ياغا فون ndax ko xamne ne xolama nga fa won di bëgg kooku day firi moo nga fa woon kon kenn ku nekk na xam ne balaa yàlla di sàkk dara min kaa ngi fi woon parce que lam mooñee mbindeef mi ba ku nekk taxaw di wax man soo xoolee leeru min kaa ngi fi inna ni qabla al baraya amul benn wali gu mu sox loolu parce que wax bi dafa leer arab la man balaa mbindeef mi xubbuhu bëgg yonent bi suuxlu jinaan yi suuxlu janaan yi moom laa moom laa yitteeloon ci sama xol moom laa doon dundee bàyyi ñes nag yon bàyyi ñes nag nee na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam su nekkee ne xam nga ko nga xam ma man soo ma xoolee rek danga ma yërëm wa man kaana yadril mun xamin naa wa aqiba yariqu li xaalaati walaw kaana aadiya mu ne ku xam yonent bi xam ma man bàyyi soo ma xoolee danga ma yërëm ndax li ci yonent bi du jeex te man duma tàyyi duma bàyyi ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moomu nag bàyyi mooma nga xam ne ñaar lañ ñu mënul te xalikoo teew bàyyi junjoon nañu ne wa aydan ara aynayhi tushbihu aynahu jamalan fahal tulfi fahal tulfa li ahmada min sunya bàyyi ñes nee na wa aydan ba léegi gis naa ay ay wa aydan ara aynayhi gis naa ñaari jëmm yonent yàlla muhammad yi tushbihu aynahu ñoo ngi nuroog jëmmam ji gis naa ñaari jëmm yonent yàlla muhammad ñoo ngi nuroog jëmmam ji ñaari jëmm yonent yàlla muhammad yooyu nag mooy jëmm wilaya di cheikh ahmed tijani ak jëmm khilafa muy maqama cheikh ibrahima ñas ñaari jëmm yooyu bàyyi ne gis naa tushbihu aynahu ñoo ngi nuroog jëmmam ba léegi ku xam yonent bi dëgg-dëgg soo xoolee cheikhu tijani da nga xam ne jëmm yonent yàlla muhammad moo fa nekk ku xam cheikhu tijani dëgg soo xoolee bàyyi ñas da nga xam ne jëmm cheikhu tijani fa nekk bàyyi ñas nee ne xamaltu sirra xaatimil wilaya jamaatu bayna zawqi wa diraya yenn naa fekkere cheikhu ahmada tijaani mi nga xam ne moom moo matal wilaaya ci xeetu muhammad jamaatu boole naa bay na zawqi wa diraaya diggante xam-xam gu ñuy mos ak xam-xam gu ñuy jàng ñaar yëpp laa boole man bàyyi léegi nag soo xoolee bàyyi mën nga gis cheikhu tijaani ci naka cheikhu tijaani bañ ko laajee taalibe yi ñoo ko laajoon ñu ne ko yaa cheikhu anta bi raxilin an daari dunia ayna al yow sëriñ bés bés dana ñëw yow sëriñ bi ñu ñu seet la duñ la gis kon kan mooy xalifa bi ay nal xalifa yaa cheikhu anta bi raxilin an daari dunia ay nal xalifa yow bés dana ñëw ñu laaj ñu xool duñ la gis kon kan mooy sa xalifa dégg leen wax ju baax kan mooy sa xalifa yow cheikh ahmada tijaani cheikhu tijaani mënoon na tudd koo xam ne xëy na arab la mbootug yàlla yàlla koy def ko neex yàlla ne zalika fadlullahi yutihi man yasha man sama ngeneel maa koy jox ku ma neex ki ki yàlla neex mën na nekk ñuul mën na nekk ku weex mën na nekk ku njool mën na nekk ku gàtt mën na nekk olof mën na nekk pël mën na nekk lu nekk moo tax bañ ko laajee ana xalifa bi sa ginnaaw xalifa bi nag xalifa biñ koy laaj mooy ki nga xam ne moo koy remplacer ci maqaama ga muy dund ci yàlla bokkul xilaafa goo xam ne xilaafa ak cant la yaa fi nekkoon soo fi jógee man maay sa doom wala man maay sa sët maa war a donn sa maqaama gi déedéet donn kon ñaar la cheikh hasan dem daan ko teqali mu ne alxilaafatu xilaafataani xilaafatu xalfin wa xilaafatu xalafin xilaafatu xalfin mooy wutug cant yow yaa fi nekkoon man maa la war a remplacer ndax maay sa doom ak yow yaa fi nekkoon jóge nga fi man maa lay wutu ci maqaama ga ngay dund ci yàlla kon ñaari maqaama yooyu bokkuñu kon ñoom lañ doon laaj cheikhu tidiane yi mooy suñ ko gisul maqama ga muy dund ci yàlla kan moo ko fa remplacé cheikhu tidiane ne al khalifatu fi aqsa ardin wa akhfa lawnin wa asabi zamanin yaati ana aanadaka fi dahsha wallahi la minna min والله لا ينتفع منا من بعد علي حرازم إلا إذا ظهر صاحب الفيدة من الخليفة سما خليفة من في أقصى أرض مونغي تريو ميغنا sori wa axfa lawnin moo ngi ci melo gi gën a nëbbu wa af abi zamanin dana ñëw ci jamono gu gën a métti ci jamono yi suy ñëw nag yaati mu indi bil faydati li ñuy tuddee faydu anazaka fi daxsha ñépp gëlëm wallahi géñ naa ci yàlla laa yuntafau min naa kenn du njëriñu ci man njëriñu gu mot ginnaaw ali harazim illa ida zahara saahibul faydati lu dul su saahibul faydati feeñe saahibul faydati saahibul faydati mooy borom faydu gi il faut ñu leeral luy faydu mën naa wax ñi mujjee dugg ci faydu bi soo leen xaajoon téeméeri xaaj ñi mujjee dugg ci faydu bi soo leen xaajoon téeméeri xaaj 90 yi soo leen laajee lan mooy faydu ak fan la jóge ak fan la jëm ak lan moo tax mu ñëw xëy na duñ ko xam te lu ñu war a leeral la ndax ci mission yi Baay ñett la bokkoon bàyyi ñetti mbir moo ko taxoon jóg lislaam tariqa faydu amul benn wali yàlla gu musa isdiwaaj yii nii di ànd ak moom te réussir ci am ci réussite ci ñett yépp nga doxal lislaam ci sa jamono nga am ci naja tariqa bi nga am ci naja faydu bi nga am ci naja comme nam waree loolu amul benn doomu aadama gu musa am loolu kudul dul bàyyi ñes radiallahu anhu laaj nañ ko nag lan moo yëkkati faydu bi ak lan moo tax faydu gi ñëw bàyyi la ñuy laaj bàyyi nee ne alxikmatu fi zuhuri hadihi alfayda fi hada zamani alfasid هو ضعف الايمان في قلوب الناس وكثره الفرق الضاله المدله وهذه الامه امه مرحومه فافيدت عليهم الحقائق لكي يرجئوا لاثر فتنه الايمان. باين اثنين الحكمه لن موي حكمه في ظهور هذه الفائده في فايد جيفين. موي بن ضعف الايمان غم يلا دفا راك نيو دوله في قلوب الناس في خلو نيني. تفايد سوتي دوجي بتربي سنغم يلا دي يوكو. ndax ku daan yegg yàlla suñ ko waxee bàyyi ñu ne ko diw yegg na yàlla li muy njëkk a wax mooy alhamdulillahi alladi zaada al imaana fi ummati muhammadin sant naa yàlla mi yokku ngëm yàlla ci xeetu yon ci yàlla muhammad parce que tarbi bi daf lay yóbbu falsafa la philosophie la goo xam ne daf lay yóbbu foo xam ne da ngay ràññee diggante yàlla ak lu dul yàlla parce que soo xoolee falsafa la philosophie la waaye nuróowul ak philosophie ñoom Descartes wala Nietzsche wala Karl Marx parce que ñooñu seen philosophie dañ ko tabax ci lëndëm mais philosophie faydatu tijaaniya dañ ko tabax ci leer ñee dañuy dem ba dàq yàlla yow dangay ñëw ba saxal yàlla dàq lu yàlla kon ndeke faydu bi li tax mu jóg mooy duful imaan yi mooy xol yi xol doomu aadama yi ngëm yàlla dafa ràgg ci ñoom fi qulubi nnaas wa kasratul firaqi dallati l mudilla kuréel yi réer yi réer ba pare di réeralaate dañoo bëri encore ci adduna bi kasratul firaqi dallal mudilla mu ne wa hadhihi al umma booba nag xeet bii mooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ummatun marhumatun xeet la gu yàlla yërëm fa ufidat alayhim al haqa'iq yàlla nag tànn ci ñoom faydu bi li kay yarji wa li asri fitratil imaani ngir ñu mën a dellu ci cosaanu ngëm ñu mën a dellu te na leen yàlla sàkkee woon seen xol avant ñoo gis kiiraay yi di dellu ci lu dul yàlla loolu moo yëkkati faydu gi lii moo yëkkati faydu gi waaye nag lan mooy faydu encore lan moo lan mooy faydu encore bismillah tafaddal dana ñëw ci li Baye Diouf wax yépp dana ñëw dana ñëw ci li Baye wax yépp ci wàllu xam yàlla geeg yaa ni ndax danañ ko xam wala dañ ko xam waaye dañuy njëkkee ci point yi nga xam ne am na solo lool mooy Baye Niass radiyallahu anhu indi na li ñuy tuddee faydu te Cheikhu Tidiane yi moo ko junjoon avant avant dara Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu wax na mbiru Baye avant baay di ñëw نعم الله كان ولم يكن وتکون ولا ولا ویکون ولا تکون اخی این تکون اللہ کانا ولم تكن ويكون ولا تكون أخي أين تكون الله كان من يالا أمونا يالا أمونا امو يالا باموي أم يو أمو تدنغا نياك مو كنتنا دي أم koo xam ne koo xam ne ba muy am yow amoo te da nga ñàkk mu continuer di am yow amoo fi moom moo fi nekk nekkoo fi moo fi nekk koo xam ne nekkoon na te nekkagoo te da nga ñàkk a nekk mu continuer di nekk kon ba ngay nekk nekkoo moom moo nekk allahu kaana lam takun wa yakunu wala takun uxaya ayna takun foofa nag la sànni sayidna ali sayidna ali dugg ci maqaama fanaaw fanaaw bi nga xam ne soo ko bëggee xam cheikh abdallah daan na wax soo bëggee xam ni péeyub yàlla gi mel mune gëmmal sa ñaari bët la ngay seen foofu amul kaw amul suuf amul biir amul biti amul dugg amul génn amul ana amul naka loolu lay bàyyi ñes di wax laa yazaalul abdu bàyyi ñes nee na laa yazaalul abdu yataqarrabu ila allahi binnawaafili xatta yuhibbahu fa ida ahabbahu yajzibuhu jazban لا يعرف الأبد فيه نفسه ولا غيره ولا أوله ولا آخره ولا جزءه ولا كله يغيب عن شهوده ويستهلك في شدة استهداره مولاه جل وعلا ويشاهد في تلك الحالة حضرة قبل القبل وبعد البعد ليس لها أول ولا آخر ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا عين ولا كيف ولا اتصال ولا انفصال ولا داخل ولا خارج فني المحب في محبوبه حتى فني فناؤه فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول ولا ثم بائن باي نيس رضي الله عنه نينا باي نينا ند دنج دي دم تي يالا دي دمي اي نافيه يباح موي صلاه الفاتحه ندخ كين مانول ييغ يالا تي جارو تي صلاه الفاتحه حتى يحبه با يالا بغ جام جوجو يالا سو بغي جام جوجو لان موي خيو فاذا احبه يجذبه yàlla su bëggee jaam ji def koy jazbu jazbu mooy xëcc def lay xëccee fa nga nekkoon yow mu yóbbu la fam nekkee moom ñu ne cheikhu tijaani yi lan mooy jazbu mu ne al jazbu huwa ixtifaafu llahi al abda min waadi tafriqati ila bahri al jam'i بحيث yasmau يسمع ولا يرى ولا يعقل إلا الله بالله في الله أن ila allah jazbu جذب yàlla xëcc la لا la fa nga doon ييغي sa bopp yóbbu la foo xam ne doo fa yëg dul jëmm ak yàlla gi xaytu laa yasmau wala yaqilu illa allah doo fa xelu doo fa dégg doo fa gis lu dul jëmm ak yàlla gi looloy jës bu bàyyi ñaf nee na soo jëlee salaatul fatih yéeg wala soo yéegee avion wu salaatul fatih daal di jëm ci péeyuk yàlla gi di wirdu salaatul fatih salaatul fatih bi dafa mel ni benn éponge boo tooyal di ko effacé sa tilimaayu seetu xol ndax xol day tilim ñu ne yonent bi wa maa jilaawuhaa mu ne zikrullah xol day tilim comme seetu la mel ñu ne yonent bi lan moo koy effacé mu ne tudd yàlla nga jël salaatul faati bi mu mel ni éponge boo xam ne danga ko tooyal di bomb sa tilimaa yu seetu xol pour jant jëmm yàlla gi mën a tàppe ci sa seetu xol nga mën a ràññee kan mooy yàlla bàyyi nee ne soo waree avion salaatul faati wala boo nga téye contact ak salaatul faati laay wax parce que nit ki xam na yàlla am na mais gisu ko fay lamp bi xam na ne moom am na mais gisatul boppam te guddi la xam na ne moom moo ngi ci néeg bi am na mais gisatul boppam comme nam xamee ne yàlla am na mais gisul yàlla su bëggee xam yàlla fan la nekk wala bëgg a gis boppam moom fan la nekk na laal contact bi su ko laalee su tàkkee day gis boppam moom tamit su naam na naam may leen ñu tuuti may leen ñu tuuti fiñ fiñ bëgg a yegg yeggaguñ foofu aham aham bi aham bi aham bi xam na ne yàlla am na mais gisu ko xamul analaat naka moo ngi mel ni ku nekk ci néeg néeg baa ngi lëndëm xam na ne moom am na waaye gisul boppam moo ngi ci biir néeg bi néeg baa ngi lëndëm xam na ne am na waaye gisul boppam ginnaaw su bëggee gis boppam day laal contact bi bu boobaa xam bi tamit sa bëggee xam yàlla na laal contact ak salaatul fati bu boobaa nag bàyyi nee na yajzibuhu jazban yàlla xëcc la benn xëcc mu ne su la xëccee jaam ji dootul xam ci xëcc bi boppam dootu fa xam lu dul boppam léppay effacé wu dara du fa des lu dul yàlla laa yaarifu al abdu fihi nafsahu wala gayrahu wala awalahu du xam njëlbenam wala wu dootul xam mujjantalam su la yàlla xëccee jëlee la fa nga nekkoon yow yóbbu la fa mu nekk moom doo fa gis njëlbeen doo fa gis mujjantal ndax yàlla ci boppam soo ko xamee da nga fekk njëkkul mujjul ndax su nekkee ne moo njëkk xanaa dafa am kum doon njëkkanteel ñu nekk ñaar dafa am place bañ doon njëkkante dafa am jamono gañ doon njëkkante loolu dafa bëri te fi yàlla nekk bëri amu fa kenn fa nekk bàyyi nee na soo duggee ci pay doo fa gis awwaliya doo fa gis axiriya laa awwaliyata hunaaka wala axiriyata hunaaka boobaa rek jaam ji effacé wu ndax lim teewloo yàlla ci dënnam yëgatul gisatul lu dul jëmmuk yàlla gi bàyyi nee na mu dugg pay boo xam ne qabla al qabli wa baada al baadi qabla al qabli pay bi moo njëkk njëkk njëkk ci boppam pay yàlla gee ko njëkk ndax njëkk ba léegi jamono la wa baada al baadi mooy mujj tamit pay yàlla bee ko mujj mujj day dem ba jeex fekk fee yàlla baa ngi fi baadal baat laysa laha awalun wala axirun mu ne yàlla fam nekk amul njëlbeen amul mujjantal wala fawqun amul kaw wala taxtun amul suuf ñu ne loolu naka nan la mel Cheikh Abdoulaye ne soo gëmmee sa bët la ngay seen foofu amul kaw amul suuf amul biir amul biti amul dugg amul génn amul ana amul naka jaam ja su fa duggee nag fan yel muhibbu fi mahbubi ka bëggoon yàlla jeex na ca kam bëggoon mooy yàlla falam yabqa illa allah dara des fa lu dul yàlla la shay'a ghayruhu foofa nag la yonent bi sànni sayyidna ali ci biir laa ilaha illa allah gi nga xam ne njëlbeen gi mën nga wax laa ilaha illa allah waaye mujjantal gi allah ngay wax parce que laa ilaha dàq la allah saxal la laa ilaha da ngay dàq allah da ngay saxal soo demee ba xam yàlla da ngay xam ne la ngay war a dàq nekku fa ba ngay dàq kon yaa ngi yàq sa temps fan nga yem mooy allah allah shibli benn wali yàlla la fum daan tollu allah allah la doon sikkare allah allah ñu ne ko yow lu tax doo wax la ilaha illa allah allah allah rek ngay wax mu ne maa mën ani an azkura la ilaha illa allah illa li la amuta fi sahra in fi qabla an asila bi saahili isbat dara terewu maa wax la ilaha illa allah lu dul bañ a dee ci àll dàq balaa maa yegg ci géejug saxal ndax àll dàq mooy fa ngay dàq lu dul yàlla soo yeggee da nga xam ne la ngay daax nekk fa wala soo fa taalamu ann sayraka lam yakun illa ilayka salaw balagta al manzila aliyu nag xam ne ndeke dara nekk fi lu dul jëmm ko yàlla gi yonent bi muhammad saa sallam ne ko di ko ndax nit soo ko tarbiyoo léeg-léeg da nga koy laaj imtihan ko xool fan la toll ndax am na yëg-yëg ndax am na mos-mos ci yàlla yonent bi ne ko yaa aliyu mu ne ah mu ne ko kaan allahu wala shay'a maahu amoon na jamono yàlla rek a fi nekkoon lu dul yàlla nekku fi ba mu waxee loolu déglul tontu bi koy naa Ali tontu nga xam ne xaqiqatan kii dégg na yàlla kii mos na yàlla kii xam na yàlla ndax ku dugg ci maqaama fanaawu su waxee rek da xam ne kii yegg na yàlla waaye kuy fanaawu fanaawulu te fanaawul di xam-xam lu te xamul su waxee benn baat bu njëkk bi mën na dajeeg dégg waaye soo ko dégloo su kanamee rek danga fekk mu saaraan mu mel ni dof ja nga xam ne dañ doon seetu weer wi gisuñu ko dof bi jékki-jékki weer waa nii gaa yi xool dajeeg weer bi ñu ne ah di ko defatul mu dégg ñu koy wax mu ne weneen a ngi nii ñu xam ne ndeke kii ba léegi dafa dof ginnaaw moo ngi gis beneen weer kuy xam-xam lu te xamoo noonu lay mel dafa mel ni xam nga léegi da lépp yàlla la loolu ku nekk mën na kaa wax lépp yàlla la ku nekk mën na kaa wax waaye suñ la toppee da nga saxal leneen lu dul yàlla moo tax fanaaw bi ku duggul ci xaqiqa Cheikh xadratu Cheikh Ibrahim soo ko xam-xam looy doo ko xam danañ yegg ci li bàyyi juuf wax léegi ci xam yàlla bi insha allah léegi ñoo ngi ci sayidna aliyu ak nan la waxee nafsu xaqiqatu nafsi lañ ko laaj ma leen di waxal nag kan mooy sayidna ali d' abord balaa dara parce que ci ki gën a xam yàlla ci sahaaba yi la bokk sayidna aliyu toog na benn bés fëgg dëndam ne inna ha huna la ilman jamman law asadtu bihi lakinan fii xam-xam ko yaatoo ngi fi suma amoon gëlëm yi ko yenu te seydina ali nee ni lawlal inaayatu la awqattu sab'ina ba'iran min tafsiri ba il basmalati su nekkuloon inaaya danaa firi ba ul basmala point bu nekk ci bismillahi rahmani rahim danaa ko firi firi boo xam ne dañ ci yenn juróom-ñaar fukki gëléem 70 gëléem bañ 10 ci firi ba ul basmalati point bi rek mooy bismillah yi point bi dafa am lu muy junj moo tax amru bnul farid kenn ci wëlu yàlla yi la nee na péyug yàlla gi wax naag moom ne ko falaw kunta bii min nuqtatil baai xafdatan rufita ila ma lam tanalhu bi hiilati yow amru bnul faris soo meloon ci man ni point baa bi mel ci man ndax dafa suufe soo suufelu won ba dammati sa am am kon danaa la may loo xam ne maa lam tanalhu bi hiilati mënoo ko jotee ci sa pexe kon ndeke baa bi dafa am lu mu junj saydna ali ibne abi talib ak xam-xamam gu googu yonent bi laaj ko ne ko kaan allahu wala shay'a ma'ahu amoon na jamono yàlla rek a fi nekkoon lu dul yàlla amul bu boobaa xam nga laaj bi dafa mel dañ ko ci piégé xaqiqatan amoon na jamono yàlla rek a fi nekkoon lu dul yàlla amul day mel ni léegi am na lu fi xew lu dul yàlla mais sayidna ali tontu ko ne huwa al ana ala ma alaykaana ba tey nam nekkee woon te dara amul noonu la nekkee ba léegi gisuma fi dara lu dul moom yonent bi xam ne kii xam na yàlla متفيدنا لن رأيت ربي بأين قلبي فقلت لا شك أنت أنت جسنا يا الله جسما بطب خل مانك سكي أملنا يا رجع يا يو أنت أنت كون أنت يا بيو رجع يا كموم يا يا موم موم موم كوكو من كوكو وخرك يا يا كموم متخ من يو يو دني دنا شدغو سيدنا علي بن أبي طالب نلاج كنينة كما هي حقيقة السر لن ما يدق دق سك حقيقة النفس لا بقى ما هي حقيقة النفس فسكي سو خولي ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ba mu fi nekk yàlla dara nekkul moo ngi dund ci maqaama sirru yàllaa ngi dund ci maqaama haahut yàlla wàcc ci haahut jëm ci jabarut yem ci yàlla muhammad wàcc ci sirru ñëw ci ruuxu yàlla wàcc ci jabarut jëm ci malakut yem ci yàlla muhammad wàcc ci ruuxu jëm ci aqlu yàlla wàcc ci euh, malakut dem ci euh, def yàlla wàcc ci euh, haahut laahut yàlla ba mu fi nekkee ci yeneen yonent bee ngi ci maqaama nafsu يلا واتي هاهو جمتي لاهو ينتي واتي آه، آه، مقام سر دمتي روحو هاهوتا ولاهوتا تن وملكوتا وناسوتا ما يجيرو مي بي يالا يدور يالا دلو أفادرا ينتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم دندو آه، سرا وروحا وأقلا وقلبا كون هاهو يالا مومنغو سر, سر, سر ينتي يالا محمد laahuutam moo méngoog ruuxu yonent yàlla muhammad jabaruutam moo méngoog aqlu yonent yàlla muhammad malakuutam moo méngoog eh, eh, eh, qalbu yonent yàlla muhammad saai sallam naasuutam moo méngoog nafsu yonent yàlla muhammad saai sallam kon yonent bi dund na sirru mooy sekkere dund na ruuxu mooy ruuxu mooy am dund na aqlu mooy xel dund na qalbu mooy xol dund na encore nafsu mooy bakkan mujjantalu maqaama yonent bi dund yàlla sàkk mbindeef mi ci maqaama nafsu la sirru nag moo njëkk sirru secret la ñu ne yaa siin soo ko waxee day firi yaa siina sirrillah fi xadarati haahuutillahi qabla alqabli qabli yow siinuk secret yàlla gi doon dund ci haahuutuk yàlla balaa dara parce que yaa siin yow siin bi lay firi ci baatin siin bi lay firi kon siin bi siinuk sirru la nafsu googu nga xam ne mooy mujjantalu feeñuk yàlla muhammad laaj nañ sayidna ali luy xaqiqatu nafsi mu ne xaqiqatu nafsi laysa almaru yaarifuha fa kayfa kayfiyatu ljabbaari fi lqidami mu ne xaqiqatu nafsi ngeen baal ma fi may wax nii xëy na dina am ñu ko dégg am ñu ko du dégg danaa fa génn léegi xaqiqatu nafsi mooy dëgg-dëgg bakkan laysa almaru yaarifuha nekkul ku nekk ko mën a xam dëgg-dëgg bakkan nekkul ku nekk ko mën a xam cheikhu tidiane ba muy wax bàyyi lan la wax wallahi la yurafu fi dunia wala fi alaxira kenn du ko xam ci àdduna kenn du ko xam ci alaxira ñu laaj si abdullahi ñu ne ko kon fan lañ koy war a xamee mu ne fu àdduna amul alaxira amu fa ndax doo xam bàyyi di xam ak leneen xaqiqatan kon laa yurafu fi dunia wala fi alaxira sayidna aliyu junj na gi léegi ne gars di ko donnante cena sandem daan na wax silsila bi sayidna ali ibn abi talib nee ne law kushifa anil alghitaa amazdatu yaqinan soo babbati woon juróom-ñaari asamaan babbati arasa kursi yi ma jana ko yàlla du ma yokku yaqin ci yàlla yaqin mooy seextu si goo xam ne moo lay may dëggu mu ne parce que ni ma xamee yàlla maanaay xam du ko jéggi xam nag ba xam mazahir ya nga xam ne ñoo ngi ñëw ci yeneen jamono yi ba adduna jeex moo tax yonent bi ne ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha man maay dëkku xam-xam waaye aliyu moom mooy bunt bi moo tax Cheikhu Tidiane bi mu ñëwee tamit aliyu mooy bunt bi ba léegi ali harazim wala ali tamasid yi ñaar ñep ay buntu lañ bay ñef ñew ali moy buntu yi ba legi kon sirru ali waru ñoo yemu anna aliyan babahu sisa anna aliyan babahu sisa ak anna aliyan babuhu sisa ñaari sire nga fa ben sire moy anna aliyan aliyu baabuhu mooy war a nekk bunt bi daal kon ali ismu inna la baabuhu di xabar bi ci ci ñi jàng naxu naxu arab am na tamit anna aliyan baabahu sikki amul ne aliyu mii nga xam ne mooy bunt bi siisa defar nañ ko nañ ko war a defaree ndax siisa ñoo ngi ko jëlee ci saasa siisa saasa siisa siisa filumaat yi mabdu lil majhuli kon laa xarwa anna aliyan baabahu siisa ak baabuhu siisa bàyyi ñas ne ko an la ki haada ya mariam yow mariam foo jëlee lii Mariam ne ko huwa min indillahi ci yàlla laa ko jëlee xoolal loolu ay alxuraan lañ fa def iqtibaas su nekkee ne xam nga luy alxuraan da nga fekk muhaawara bi muhaawara gu rafet la moo tax nag sirru aliyoo ngi noonu jëlee ko ci yonent yàlla muhammad ba ci cheikhu tijaan yi ba ci Baye Niass radiyallahu dama bëgg xam nag dama bëgg ngeen xam Baye nekkul ku xëy tey rek ñu xam ko tey borom basiira yi balaa tey balaa Baye di ñëw borom gis-gis yi ci baatin waxoon nañ ci Baye الإمام غزالي وحنا تبايو مطلع شمس النفس من مشرق الخلا فيطلعها من مغرب الأدمية لو متاح نكو فإنك شمس الحق شرقا ومغربا فإنا بحمد الله في مغرب الشمس يا دون جنتك دق جيتا بانكو واي يو يا جنتك دق أنكور تسوو فإنا ننجي بحمد الله سنتنا يالله في في مغرب الشمس نيونغ تسوو جنتك مصري نينا فإن شرق الأقوام يوما وغربوا فسيري إليكم لا إلى الشرق والغرب من نيس من دمي بنك ولا سو دي اوتي دي توكي دي دافلو نيك مان سما دوخ تي يو لا جيم نده يو ياي سيك ريك بنك يو ياي سيك ريك سو مونغوك باي الامام غزالي جونجنا مقامه جي مدارج مدارج النفوس سو خوله ومثل شمس النفس تو نيكاني امغا غيس غيس nga xool maqaama baay bi mi nga xam ne kii waxul ku dul Baye Niass radiyallahu anhu ñi ñii boroom xalaat yu ko wey nag laay waxagum danaa ñëwaat ci Baye mi nga xam ne zahir bi la ndax wa mutli u shamsi nafsi su nekkee ne am nga gis nga xool maqaama Baye bi da xam ne kii waxul ku dul Baye Niass radiyallahu borom xalaat yu ko wey laay waxagum danaa ñëwaat ci Baye nga xam ne zahir bi la ndax Baye dafa am Baye boo xam ne baatin la am Baye boo xam ne zahir la comme ni cheikhu tidiane amee maqaama zahir amee ko noonu ci baatin yonent bi amee noonu maqaama zahir amee noonu ci baatin yàlla amee ko tamit ci zahir amee ko ci baatin ndax lu nekk rek day am lu feeñ am lu nëbb kam xarra sabruka wabtisaamuka saahiban lamma raaka wa fi lxasha ma la yura ñaata yoon la sama muñ ak sama muuñ di la nax ndax xott yaram wi ngay gis waaye wa fi lxasha ma la yura tey soo xamoon li ma nëbb ci sama dënn ci ay maqaama da nga xam ne bàyyi ñes ne subhana man satara alxususiyata bil bashariya sellal naa ki jël xottu yaramu doomu aadama nëbbee ko maqaamam nga muy dund ci yàlla wa in tufsil caméra kulle shay i fama fi lqalbi jalla anil caméra su nekkee ne caméra mën na jël lu nekk fama fi lqalbi lu ëmb ci xol bi jalla anil caméra loolu caméra mënu koo jàpp koo koy bàyyi ñes radiallahu anhu ñu laaj cheikhu ñu laaj cheikhu tijaani yi ñu ne ko kan kan mooy kan mooy bàyyi ndax dafa junj bàyyi bu junju junju dana danaa ñëw ci bàyyi zahir bi fi mu nekk nii xëy na dana am ñu njëriñu dana am ñu njëriñuwul parce que wax bi dafa waaw mongo cheikh cheikhu tidiane radiallahu anhu nee ne sullatun min al awalina wa sullatun min al axirina mu ne asullatul axiratu hum ashaabi yàlla wax na nee ne mbooloo mu njëkk ma ak mbooloo mu mujj ma ñaari mbooloo la yàlla tudd ci alquran Cheikhu Tidiane jóg te moo motal wilaaya ci xeetu Muhammad amul benn wali bu koy féetee kaw ba yowmal qiyaamati motal wilaaya ci ñaari maqaama la motal naa wilaaya benn wali yu dootul ñëw ba raw ma ak motal naa wilaaya beneen wali yu dootul ñëw sama ginnaaw mais loolu ci àll Isaa la ko yàlla may Isaa su ñëwee benn wali yu dootul ñëw ci yàlla Isaa dana wàcce mujjantalu jamono su wàccee benn wali yu dootul ñëw فيختم عيسى لا تكون ولاية بأيد ممات الروح وسر يدفنوا باين يسنين فيختم عيسى عيسى دنا مت الولاية خيط محمد لا تكون ولاية ولاية دوت الأم بأيد ممات الروح جناو بإيسى ديوي سو إيسى واتشاتي بدي ولي دوت الجد تشكوسوف نينلو تخ باين ينا وسر يدفنوا سكر جدن كيسول كون إيسى مطلنا ولاية كظاهر ويا شيخ تجاني مو مطل ولاية كباتن مطل ولاية كباتن مو لن mooy cheikhu tijaani dafa jàkkaarloog yoon ci yàlla muhammad ne talabtu min rasulillahi buluga algaayati fi aqsa maqaami alqudbaaniyati allati ma fawqahu maqaamun illa maqaamu nubuwati maa jàkkaarloog yoon ci yàlla muhammad ma ne ko dama bëgg nga may ma maqaama gi gën a màgg ci biir maqaama qudbaaniya nga xam ne wali dootul ñëw kawe garaat ba paase ma may ma ma dem ci biir wilaaya ba nga xam ne ku ma paase yonent ci ngay nekk waaye doo mën a nekk wa باني رضي الله عنه نانا لأمري هذا شيخ عين ولاية تفجر من بحر النبوة سافيا يمناتي شيخ تجاني دفا دمبا جيخ البحر الولاية جيجك ولاية دال دي سوخ خوص جي جيجك نبوة موي جيجك يننت مجن دال دي نك ولي نك يننت لأمري باي نجن نادي سمدند هذا الشيخ سرين وي موي شيخ تجاني عين ولاية موي جمك ولاية كنان تي جيجك ولاية مولا ناندل ndax nee na laa yashrabu waliyun wala yasqa illa min bahrina min nachati al alami ila nafxi fi suur wali du naan du nandal ci géejug wilaaya lu dul man maa ko may mu naan ñu ne ko loolu ba nga ñëwee la mu ne déedéet min nachati al alami ba yàlla ajee asamaan bi waddal suuf si ba tey waliyu yàlla gu naan wala nandal ci sama géej la naan naan man Cheikhu Tidiane te man maa ko nandal li ci gën a yéeme nag mooy yonent yàlla yi avant ñoo nekk ay yonent ay wali la ñuy nekk suñ la laajee ñun la kon ku leen doon nandal nel Cheikhu Tijaani yonent yi balaa ñoo nekk ay yonent ñoo ngi doon naan ci géejug wilaaya ay wali lañ nekkoon ba bañ amee ñeent fukki at ñu jo doog leen jox maqaam ak wa kon nag ndeke bañ nekkee ci maqaam ak wilaaya Cheikhu Tijaani huwa alladi kaana yumidduhum kon xamal ne amul benn wali ci kaw suuf buy naan ci géejug wilaaya lu dul cheikh moo la nàndal nga xam ko walla nga ñàkk koo xam gis nga lépp léeg-léeg am na kuy taal courant te xamul kan mooy directeur bi yor courant bi xaqiqatan noonu la mbir mi mel wali yàlla gi dana dund ci leeruk Cheikhu Tidiane yi dund ci maqaam ak Cheikhu Tidiane yi Cheikhu Tidiane di ko nandal te fekke moom xamul Cheikh moo koy nandal waaye fan lay leeri mooy keroog àllaaxira Cheikhu Tidiane nee na su àllaaxira jotee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dana jël benn photo yi tegal ma ko ci kaw mbindeef mi fekk ñépp a ngi teew awwal yi nag aaxiri na ñu njëkk ak ñu mujj teew ñu tegal ma benn photo yi man ma toog ci man Cheikhu Tidiane lan la yonent bi di def mu ne yonent bi day taxaw junj ma ne haza imaamukum wa haza mumiddukum fi daari dunia kii mooy seen njiit kii moo leen doon dolli ci kërug adduna ti xamu leen ko kooku nag ci baxrul wilaay googu mooy mooy Cheikhu Tidiane radiallahu anhu ci maqaamaat wilaaya googu nga xam ne matal na ko xaatimul wilaaya ci laay wax moo matal wilaaya ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi la ci wàllu ci wàllu euh, baatin li muy firi mooy amul benn wali guy ñëw ba yemook moom dara bi parce que jour boobu mu waxee qadamaaya haataani ala rakabati kulli waliyin lillah jour boobu mu waxee sama ñaari tànk yaa ngi ci dox bépp wali yàlla am na kenn ci góorug yàlla yi Muhammadul Ghali ku ñëw ne ko yow sëriñ bi li ngay wax nii dangaa màndi ci sàngaraak yàlla gi di wax wala yow yaa tey li ngay wax parce que am na makaama goo xam ne ci makaama yàlla yi soo fa sooboo dootoo nekkateeg sa xel man nga wax ci làmmeñu maqaama jàmbur te fekke moomoo maqaama googu waaye ba mu laajee cheikh cheikh def ko ne ana fi sax sahwi walillahi alhamdu maa ngeek sama xel màndiwuma ci péejuk yàlla gi li may wax nii maa ngeeg sama xel gu mat sëkk ne bépp waliyu tey sama ñaari tànk yaa ngi sa koo bopp danaa génn foofu tuuti pour ñëw ci Cheikh Ibrahima radiyallahu mi nga xam ne moom mooy guddi gi parce que Baye Diouf njukkal Baye la tuddee guddi gi kon li ci gën a bëri dafa war a nekk Baye te Baye moomu suñ koy tudd mën nañ ci tuddaale bàyyi Diouf ndax bàyyi Diouf Baye la ba léegi nee naa ko nag alhamdulilah su ma la gisee damay fàttaliku benn séeréer goo xam ne yàlla def ko may lu rëy ci maqaam ak yàlla yi tuddoon ndongo saar ca gine ndax bu leen fàtte Baye rixlaam bi Baye def na fi dem gine yàlla may ko fa ay fuyudaat ay imdaadaat ay tajalliyaat ba dégg ngeen foofu la bàyyi daan woyee ne xamaltu sirra xaatima sirra xaatimil wilaaya jamaatu bayna zawqi wa diraaya bàyyi dem na Conakry benn góor ci góorug yàlla ya nekkoon foofu nekk benn sëriñ ci sëriñu xaadir yi tuddoon ndongo saar xam naa sa mbokk la ndongo saar moomu borom maqaama la woon ci yàlla waaye ba mu gisee baay xool baay xam ne kii borom mbir la kii moo toog ci jamono gi tey parce que baay da ko doon xool rek xam ne kii mooy saaxibul waxtu bila nisain ndax waa ji wax na ko ko ca Makka benn eh, sudaani xool baay rek di ko laaj kan mooy sëriñam mu ne ko alxaaji abdullahi sama papa mu ne waa ji woy woy bi ne ko a cheikhu ibrahimu aadamu xujjatin lilxaaji inna alxaaja kaana azima dëgg-dëgg xam naa xaaj moomu ku màgg la te yow yaay preuve bi gën a leer ni xaaj ku màggoon la ndax ku la gis rek war na xam sa seriñ ku màgg la baay moomu ku ko daan gis dangay xam ne kii la yàlla yenn sirru euh, wiraasa muhammadiya ci jamonoon moo tax ndongo saar bi mu gisee baay dafa démissionné ci ma maqaama yam nekkoon yépp te qaadir la woon mu daal di génn tariqa qaadiriya daal di jàpp ci baay baay ñas ne cheikhu tariqatin wa kaana qaadiri axasa anni lyawma fi konakiri cheikhu tariqatin baay ne sëriñuk tariqa la wa kaana qaadiri qaadir la axasa anni lyawma fi konakiri jëlee na ci man tey tariqa bi al yawma wax bi al yawma tey fii konakiri ci konakiri ñu ne ko nan la tudd mu ne yud a bi ndongo saara wax wa alamun qaddamtuhu hiinan li sirrin alamu yud a waa ji ñoo ngi koy woowee bi ndongo saara ndongo saara waaw alamun bàyyi ne ngandoo ngoog alamun xam nga ku bàyyi wax ngand kooku ngand la bàyyi yàlla def ko préparé deppi ca azal su nekkuloon loolu ñam fi fekkoon am na ñoo xam ne génnewu leen dara waaye préparation la bu yàlla def ca azal yéen ko maqaama goo xam ne ku ko gis su nekkee ne am nga botu xol da nga xam ne kii moo yenu sirru jamono gi ndax Muhammadul Hafiz ibnu Abdul Latif ca Masr te yoroon mbiru tariqa tijaan bi ci jamono yooyu ba mu na ci benn jotaay mu wax ci Baye wax ci Baye ba ne wa al u bil jumlati fa innahu nuuru haada al asri li gën a li jeexal wax bi daal Baye Niass mooy leeru jamono gi tey te ku toll ni Mouhamad Mouhamadul Hafiz ibn Abdul Latif wax loolu ci Baye nga xam ne Baye moom moom mbir mi ndax su ko moomul woon kenn du ko ko jox wan naasu ak yesu min an yamdahu rajulan min gayri an yajidu athara ihsani wan naasu nit ñi ak yesu paase nañ min an yamdahu rajulan ba ñuy tagg nit min xayri an yajidu asaara ixsaan te gisuñu si yow lañ lay taggee kon góor yàlla yooyu waxoon baay yow la dañoo gis ci baay lii wane ne moom la moo tax ndax waaja nee ne benn naar nee ne man yàlla may na ma aynul basirati su ma gisee saahibul waqti danaa ko xam dégg naa na ngeen di coow Ibrahima Niass Ibrahima Niass balaa may wax dara bàyyi leen ba ma teg ko sama ñaari bët yi su ma ko gisee su nekkee ne mooy waaja dinaa leen wax moom mooy waaja su nekkul ne mooy waaja dinaa leen ko wax man yalla mayna ma basirati ñu ne ko mo nga kawla mu joge muritani ñëw kawla ñu ne ko baye yaangi dakar mu ñew fi jeppal ñu ne ko baye yaangi ker kër umar kan bam yegge ker elhaji umar kan baye ngi ci bir jàkke ji baye ngi ci bir jàkke ji tim kamilam wacce ay veram di jang mo ngi sukkandiku nak ni jël jël loxom jor bi sukkandiku ko tiim kaamil bi wàcce ay veeram di jàng te waa ji nee na moom su gisee saahibul waqti yaarifu yaqinan annahu huwa saahibul waqti loolu sikki amu ci xool leen ko nag moom ak bàyyi ba mu ñëwee ba ci jàkka ji ubbi bunt bi seen baay ngi sukk ci loxoom tiim kaamilam wàcce ay veeram bàyyi bi bunt bi yëngoo dafa yëkkati boppam di xool kan moo yëngal bunt bi ba mu yëkkati boppam xool waa waa ji xool baay waa ji dafa am xaal ne inna ila rabbika almuntaha hunalika aljamalu hunaka albaha mu ne inna ila rabbika almuntaha kuy dem ba dajeg yàlla fa nga yem loolu la waajo inna ila rabbika almuntaha hunalika aljamalu hunaka albaha waaw mbir yëpp ci yàlla la yem mu ne kuy dox ba dajeg yàlla da ngay dem inna ila rabbika almuntaha moo tax bàyyi ne labbayka talbiyatan min wasilin arafa من كولك منتهى الدنيا الى عرفه باي باموي اجنينا يالا ويونا لا ويغو جيغي سي جام غولا خام فان لا جيغي من كولك جام جانغي جيغي سي كولك فان ماي كولخ منتهى الدنيا في ادنا بيام ادنا بيام الكولخ لي موي فري موي سوي اوت كولا خمال سي يالا باغا ييغ كولخ فاغا ييم موتاخ نار بينا ان الى ربك المنتهى هنالك الجمال هناك البهاء واجنا سي يالا نك لا نيو ييم hunaalikal jamaalu bépp taar a ngi nii hunaalikal bahaa bépp rafet a ngi nii kon nag mën nañ parce que ñun alifun thumma ha mi mun mujjal faydu tijaan jox ñu ñuy naan